asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu nañ leen ziar leen di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te ànd wér di ko ñaanal mbooleem kilifay dina yëpp mbokk yi tey ji ñu ngi fii ci Daaru Salaam tey euh, gaawu dëppook juróom-ñetti fan ci janvier atum 2022 di juróomi fan ci maamu atu atum 1443 ginnaaw gàddaay ak yonent bi salallaahu alayhi wa salaam ñu nekk fii ci Daaru Salaam ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku kenn ci jàmbaaru euh, Serigne Cheikh yi waaye kenn ci jàmbaaru Serigne Modou Mamoun ni muy Serigne Modou Roqe yàlla na ko yàlla fayal. bis bi ñu koy fàttaliku waaye nekkaale beneen bis boo xam ne ci la ñuy dajale addiya Daaru Salaam fu ñu ne addiya Daaru Salaam xel yëpp dem ci liggéey bu am solo bi nga xam ne at mu jot ñu koy def. di dajale addiya ju takk lool dem yóbbul ko ki fi nekkal Cheikhul Khadim ba noppi boole ca li nga xam ne moom moo di ab almet waaye bu ñu ca noppee liggéey boobu ñu wan ko ginnaaw fas yéene dënmal la nga xam ne moom moo jëm ca at ma ca topp. loole nag moom la ñuy waajal ñu ngi fii ci saalu Serigne Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér mu ciy def liggéey bu am solo ànd kook mboolem taalibe yi ak mboolem daayira yi. ñu taxaw ak uh, suñu kilifa suñu jëwrin ci uh, liggéey bi muy Serigne Fallou Galassine Euh, ginnaaw buñ ñu ko nuyoo rek euh, Serigne Fallou mu mel ni tey jii ñu ngi fii ci kër ci kër Serigne Modou Rokhaya ci euh, ñaari événement benn muy di ko fàttaliku waaye it di dajale waale li nga xam ne moom moo di addiya Daaru Salaam suñu laaj bu njëkk moom moo doon ñëw ci Serigne Modou Rokhaya kan moo doonoon Serigne Modou Rokhaya. <coughs> bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim <coughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Fallou maa ngi lay nuyu. Euh, di nuyu sa caméraman di euh, Serigne Demba di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñoom di ñu seetaan euh, noonu nga ko waxee rek la tey jii ñu ngi ci bisub jaayante bisub yeeslu yaakaar naa ne néewaa na nga dégg ci événement yi am événement bu tudd yeeslu lii ñu ngi ci màggalug yeeslu waaye ñu ngi ci bis bi nga xam ne ci la ñuy jaayante ak na Ahmadul Xadim ci génne sunu ñaq jox ko ku fi nekkal Serigne Touba. Euh, ki ko ki nga xam ne nag moo taxawal bis bi muy sëriñ Modou Rokhaya euh, bis bi ñeen fukki atam benn ci des fanweeri at ak juróom-ñeent am na ko ren. 1904 bañ ko tàmbalee ak léegi 83 lañ ko tàmbali woon ba 2022 yaakaar naa ne bu ñu àggoon 2023 mu am ñeen fukki at euh, te bu doon nita dama naan bu àggee ñeen fukki at mat sëkk waxambaane kon da ngay jàpp ne bañ ko tàmbalee ba fi mu ne ak gonee dox. waaye àggagut ci digg kattanam te fii ñu toll nga xam ne moom lay waajal ak waxambaaneem euh, ñi ngi toll ci deux cent et quelques millions yoo xam ne jébale nañ ko daaw te mu tàmbalee woon ci trois million cinq cent. sëñ Modou Rokhaya moom nga xam ne moo ko xalaat nag li tax mu def ko fekkoon na baayam di sëñ Modou Mamoun njëkk jox sëñ Fallou almet akub million. loolu li ci jublu woon mooy wan sëñ fallu ne ko ñun duñ taalibe yi joxe addiye ba noppi di seet fu ko sëñ bi war a def. sunu addiya saa yu ñu ko joxee sëriñ bi bu ko neexee taal ko ndax moo ko moom ñun yëg ne warteef la ci ñun ñu def ko rek lañ ci jublu loolu moo tax almet gi di ci ànd addiya sans condition euh, loole nag bi ko sëñ Modou Mamoun defee euh, wane aw yoon dañoo toog ba 1983 sëñ Modou Rokhaya ne ab bi daal bu toogee atum lëmm te dajale wut addiya jox ko sëñ Touba na ko wóor ne moom mbaam yi dox ci mbedd yi ñoo war a yem ginnaaw ba mu sosoon juma ak ya ca xew lépp euh, loolee nag la la dajale woon woote ci euh, euh, le quinze le quinze janvier 1983 sos ci addiye jooju sëñ Modou Rokhaya moomu nag mooy taawub sëñ Modou Mamoun mooy taawub sëñ Modou Mamoun sëñ Modou Mamoun di taawub maam seexanta Anta maam Cheikh di rakki sëñ Touba di doomi sëñ Mbacke Mor Anta Sali mi ngi gane adduna ci atum 1918. mi ngi génn àdduna le 28 juillet 1996 euh, sëñ Moudou Moustapha moo ko yar moo ko tarbiya mi ngi wutu baayam 1969 euh, le 26 septembre 1969 ci la wuutu sëñ Moudou Mamoun nekk fi ak xilaaf ak sëñ Moudou Mamoun waaye di jëwriñu mboolem ko fi mas a nekkal borom gaawaan def réaliser nag ci dëkk bi lu baree baree baree euh, ànd ak sëñ Abdoul ci ab liggéey ay yoon ànd ak sëriñ saalihu ci ab liggéey ci jamonoy sëriñ saalihu ci la dem ci la dem ajjana bi mu demee ajjana nag sëriñ Cheikh bi mu toogee ñu woote addiye ji mu dem siyaare ji sëriñ saalihu ci la ko sëriñ saalihu ne ko ndax jàpp ngaa ñaanal sa wayjur mu ne ko waa de moom day bu ma ci amee ndigal bëgg naa ko bëgg naa koo ñaanal sëñ saalihu ne ko bul ko def bis bi mu gënee àdduna bul ko defit it bis bi mu génnee àdduna li ngay jànge ci ne bis bi mu gënee àdduna defagul defalagu fi yàlla dara defalagu fi yàlla dara bis bi mu gënee àdduna itam ab liggéeyam noppi na daa di ko ne seetal bis bi nga xam ne ci la tànnoon di ci liggéeyal yàlla nga def ko muy bisam muy bis bi doon sase addiye ji bi mu ko waxee nag sëñ seex na kon bis bi ñun liñ ci jublu mooy yeesalaat ci sunuy pas-pas ndax doomu aadama su dul yeeslu ci day mujj tilim même mbub mi nga sol bu yàggee da koy fóot même darab bi ngay tëdd danga koy fóot yow ci sa bopp sax da nga jàpp juróomi waxtu kon ab murit daa war di yeeslu yeeslu googu nag moom la tax mu tudde bis bi bisub yeeslu da nga xam ne kon dañuy yeesalaat sunuy pas-pas tey ñaanal sëñ Modou Rokhaya yéen doo dajale addiya buñ xëy yët ko ku fi nekkal sëñ Touba loolu mooy mandargam bis bi nga xamante ne bii su ngeen duggee ci biir da ngeen gis kilifa yi ni ñuy recevoir taalibe yi taalibe yi fi ñu taxaw kenn amul benn yitte bu weesu enveloppe bi nga am nga jox ko sëñ bowoon ko ginnaaw di xaaraat ndigalul déwén te damay toujours damay faral di wax euh, sëñ Fallou di ñaanal sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun sun borom yàggal ko fi loolu te doole ak wéram damay faral di wax ne kaddu goo dégg njabootu sëñ Modou Mamoun yëkkati ko woote ko ci rajo bi xamal ne sëñ Touba la ñuy liggéeyal waaye ñoom seen mbirum bopp kenn mu a dégg ñu communiqué ko liggéey bu mu mën a doon rek kenn na koy engagé ci dëkk bi dem liggéey ko waaye bu liggéeyal sëñ Touba jotee nag nga dégg seen i communiqué moo jàppal ne kon communiqué yoo dégg Darou Salaam woote ko rek xamal ne buñ communiqué ba daanoo da nga gis jëf ju rëy ci kër sëñ Touba. jërëjëf waaw mu mel ni liggéey boobu euh, Serigne Cheikh Anta daa mel ni li olof naan mu jiwul puso mu réer yóbbu na ko fu gën a kawe kawe. waaw loolu ginnaaw baayam moo nekkoon ci bopp bi xalaat lu mel noonu andi ko sëñ Cheikh Anta bi mu toogee dafa wax ne dama ginnaaw yàlla dogal na man ki ma fi nekkal ñooy samay waajur te man lañ tànn may samay seen jëwriñ te maag samay rakk ñoo fi ne dama leen a bëgg aw yoon mooy damay ne ci kanam ci kenn du ma dab. ak bis bu set damay yokk li may joxe su ko dee ñoom danañ ma jéem a dab suñ ma jéem a jëm may avancé su yàggee liñ bëgg a joxe danañ ko joxe moo tax moom bi mu toogee bàyyam ci 18 millions million fi bàyyi woon xaalis bi bi muy dem 18 millions lañ mujj jébal sëñ Saliou daaw jébale nañ 230 et quelques millions. loolu li muy teg ci la mooy sëñ Cheikh at mu ne bu bu joxee da gis ne kër yi buñ doon benn benn kër benn kër benn kër benn kër da gis ne day ne ca kanam loolu nag li ko waral mooy bàyyam dafa nekkoon taawub sëñ Moudou Mamoun. sëñ Mourou Mamoun di taawub maam Cheikh Anta moom muy taawub baayam ba noppi nag am jom ndax nit dana wutu dara ba noppi euh, ferankulaay doo def dara waaye nag moom dafa fas ne ginnaaw gopp bi la ma fi sama baay bàyyil mooy liggéey jëm ci sëñ Touba mooy fas naa yéene moom kenn du ma ci dab loolu moo tax waxtu wu ne lu nu joxe ren bu déwénee da nga dégg ne romb nañ ko ay yoon yoon <laughs> jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Fallou Galassine la ci leeral yi am solo yooyu mu jëm ci euh, bis bi nga xam ne. ci la ñuy fàttaliku euh, Serigne Modou ya ñu naan ko bisub yeeslu waaye bis la boo xam ne ci la ñuy dajale mboolem addee ji nga xam ne taalibe yi euh, daayira ñëpp danañ ko indi lépp ñu jëbal ko Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne tey jii moo fi xalifa Serigne Modou Rokhaya ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér su noppee it loole lépp moom lay dajale euh, ci turu waa Daaru Salaam mu dem yóbbul ko ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim di ñaanalaat Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ñu yàgg ko yóbbul addee ji mu yàgg ko ànd ak mbooleem waa Daaru Salaam yëpp kon mbokk yi fii ci Daaru Salaam incha allah lépp loo xam ne mooy bàyyeekoo fii ci euh, bisub yees bi bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku moo doro Rokhaya daañu leen ko euh, dëgtal incha allah ci seen chaîne yi nga xam ne moom moo di Académie Minane TV ak Assalaamy TV wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf